président xalaatam peut-être par rapport à ce nouveau président bu assemblée nationale ñu xam ko mu di Amadou euh, donc euh, on va dire un président par surprise. Hein. président ne je sais pas est-ce que li xew affaire bañ réalité foog nit ku xool sa tooguwaay ak lan moo ko sabab. même bu fekkee jàppe nañ ko ci militant yu première heure mais dafa am ay béréb yoo xam ne jiite woon na ko ci wàllu liggéey yoo xam ne gisuñu mu def résultat bu tax ñu tàcc ko muy sab SAPCO gi mu nekkoon bi muy soog a yéeg remplacé fa monsieur Sow presse yi relaté nañu ko jàll na ci rajo yi télé yi quotidien yi euh, toog na quatre mois yoo xam fayul ña fa nekk ba nii ma waxee ak yow sab koo amul feuille de route pour nous construire vraiment euh, avenir bu le tourisme ak suñu aménagement yoon bu deuxième personnalité de l'État choix la ndax lan yamale ñi nga nga ni politique côté pouvoir mais ñew na nek ci présidence assemblée nationale xëccoo boo xamante ni bii ñi ñi jaay ñun waa Sénégal benn projet bu démocratie bu yaakaarlu ba ñu wóolu leen ñooy dugg assemblée fàtte ñi leen faloon yóbbu seen bëgg-bëgg bopp di waa coalition yeewi surtout bu fekkee mun naa ci boole wàllu mais yeewi surtout waroon a am benn comportement benn démarche ni mu amee ay frustré ci biir ñoom yeewi la amee ay frustré ci biir bennoo

ci dundam la bok mais buñu ñu ni itam lu ñepp bok di réew mi dafa am luñ ko ci denk lu mu ñu deful résultat personnalité devant ci kanamu ay député ci 14e législature bo xamni dina saf sap sàpp laa la wax mm-hmm. euh lool nak dafa dafa bëri euh, euh, Amadou mam job démb dal di ne nga def ci discours est-ce que est-ce que si si loolu yaakaar nga ni comme ni ñu gisee quatorzième législature bi nu mu bindoo ni yaakaar nga ni moom dana am poigne ci ñoom véritablement. non mun na am poigne parce que dañu koy xooloo rek fu ñuy xool xam nga Amadou Mame Diop mun na nekk gan ci Sénégal yi mais boo nekkee journaliste man Amadou Mame Diop du gan ci man. parce que plusieurs fois relaté naa ay problèmes SAPCO plusieurs fois xam nañu bi mu remplacé ndam si ci si gaañu woon maire Richard Toll xew après euh, ci ci amna na ay yu am ci ben système économique bu mu créé loon nekk Richard Toll ñu koy wax calebasse d'or

ci waxuma dundama mais ce Sénégal Je suis maire directeur général de SAPCO métier pharmacie intéressé parce que nous sommes la mais bokk SAPCO dafa oublier ak quatre mois salaire introduire ben plan de licenciement Qui bi conseil d'administration opposé donc ba léegi gis une feuille de route bu teg pour SAPCO par rapport ASPT bi nga xam ne moo nekk suñu wet. Mm-hmm. ni ñuy doxalee xaw ma ku fa nekk directeur léegi. Mm-hmm. am nañu vision tay bo demee Petite Côte nga def sondage la ku mel ñom grand boo liggéey ñi nga xamni ne xam nañu tourisme ñu tégal la diggante SAPCO ak ASTP li nga xam kan moy liggéey ak kan moo liggéey. Euh, c'est dimanche bi wess bi ko jitu rek waxtan nañ ci largement te boobu xamoo ni mam Diouf mooy nekk président assemblée nationale ci situation tourisme légui ni mi avancé ni ñu koy jaayee Sénégalais ni ñu koy jënd ba nga xamni même weekend pour nga am fo nekk Petite Côte da fay xawa jafé mu doon lu am solo mais lolu du liggéeyu SAPCO manam SAPCO bu féké mo gaddu lolu itam mom mm-hmm. deful résultat bobu mm-hmm. parce que ba légui ni amul feuille de route. lolu lañu ni da dafa ñëw assemblée nationale ak benn discours bo xamni fi mu tok ku fa tok bo défé discours ñu déglu la. Mm-hmm. mais dañuy ci wat sa discours yi jiitu ak sa gestion bu jiitu pour mën a jàngat li ñu mën a xaar ci yow dina nekk assemblée nationale dina doxal parce que dañ ko fa teg du base politique bu dëgër du doole politique bu dëgër du engouement wala audience boo xam ne am na ko dañ ko fa teg foofu nag la problème bi nekk. Mhm. ki nga fa teg ndax est-ce que dina ko def loolu lu méngoo ko li député yi xaar ci un président wala déet. ak lu mhm. peuple bi di xaar ci mu doxale ko wala déet parce que ñu bëri ci ay député li ñu doon nangul Moustapha Niass duñ ko ko nangul moom. Mhm. ci âge bi. ci sagesse bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Euh, convaincre convaincre gouma comme ni ma ko de Gantan dëggantaan euh, à l'Assemblée nationale léegi nag dañuy wax politique du ëmb dafa fay xëy wasin attendons pour faire mais boo delloo toute ci gestion mhm. man convaincre ma dinaa gis dinañu gis assemblée nationale alors par rapport à la réaction